tey dañu ñëw di ak yéen si loo xamante ne xam ngeen ko ndax yéen a koy dundee chaque jour mais ñu bëri xëy na ignoré nañu ay njariñam umpule nañu ay njariñam muy sexaw muy le combretum micranthum sexaw mu ngeen di gis nii kii mooy sexaw koy gis nii xobu sexaw sexaw nekk na loo xamante ni euh, lu am solo la dafa bari ay ferñeent xam nga garab bu ñu ne am na flavonoïde te flavonoïde boo ko déggee garab am ko boo xoolee garab léeg-léeg mu am tótóor bu jaune wala xob yu jaune couleur bu mboq boobu muy am flavonoïde moo ko jox couleur boobu saa yoo ko gisee ci garab rek xamal ni lu baax si doomu jàngoro bu ñuy wax virus la muy antiviral la moom daf ko bari dafa am ay amoñom quaternaire sexaw dafa am ñeent yoo xamante ni lépp loo xamante ni dafay dimbali nit si yaramam mu ngi si moom am na ay acide aminé am na tane moo tax bu sa biir dee daw boo ko jëlee tane boobu moo lay dimbali ba arrêté te loolu am solo am na aussi ay tuuti suukar muy glucide ñett nag moo tax ñu fonk sexew benn bi mooy diurétique la benn bi mooy antibiotique la benn bi mooy cholagogue la antibiotique moom boo ko déggee jeex lay wax lépp luy laal waa luy rey microbe moom loolu sa ay propriété am la bokk diurétique la dana la sawloo dina tax tey même ñi am jafe-jafe pour saw bu ñuy jël sexew lu bari nañ mën saw normalement bu ne cholagogue la mooy dafay facilité évacuation li ñuy wax wextaan mooy bile bi tax ngeen waxtaan woowu foog mu dem si butit ndax mooy facilité li ñuy wax digestion boo lekkee mu mën a rees digestion mën a dellu normalement loolu koy facilité muy bile bi te bile boobu pour mu def liggéeyam saxum daf ko si dimbali. kon ñetti propriété yooyu tax na ñu fonk garab gi soo jëlee xob bi ndax moom lañu ëpp lu ñuy jëfandikoo dafay d'abord dimbali nit si ay roñoom. sooy jël sexew lu bari palomarin doo ko gaaw am muy feebar la ñëw saxaw baax na si ñuy am acide mooy ñoo nga am seen biir day neew ba leen da ngay am hôpital ñuy jël seringue di xëcc ndox mi muy génn bu ku bañ mu dal la wala mu dal la ba nga am ko del jël saxaw di ko baxal di ko naan lu bari saxaw boo amee tension bu yéeg di ko naan daf lay dimbali sexu nekk na loo xamante ni dafay raxas deret doomu aadama da koy setal bu dee wàllu siburu la nag nga bëgg ko faj da koy boole yeneen ñaari garab muy rat ak ngeer suba da ngay tibb si sexaw bi ngëpp tibb si rat bi ngëpp tibb si ngeer bi ngëpp nga boole leen baxal si litre ndox cinq minutes nga segg ko di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo reer ci kàttanu yàlla yàlla na dimbali nga tàggoog loolu di siburu boo amee hépatite même feebaru hépatite yi graaw ba ñu xam ni feebar bi graaw na muy nga xam dafa commencé laal sa foie del utiliser sa xaw mais da nga koy booleeg fayaar ak papaye xobu papaye nga wut xobu fayaar boo amul nga jël si bant bi muy reen koy booleeg lii di xobu saxaw bu nekk sëngamu loxo nga baxal ko si litre genn wàll di ko jël par genn wàll boo ndekkee boo añee boo kooku képp ku am problème foie di ko jël si kàttanu yàlla na la saafara loolu mooy lu am solo nekk na loo xamante ne aussi baax na mais boo ko bëggee fajee tension da ngay boole ñett da ngay jël xobu sexew bi xobu rat ak xobu sanfito sexew rat sanfito nga tibb bu nekk sa ngëmu loxo ba mu fees nga baxal ko si kaasu ndox euh, kaas sax xëy na mën naa tuuti da ngay jël litre ndox ak genn wàll comme bu ne ngëpp la. mën nga jaxase nga def ko si litre ndox ak genn wàll muy 1 litre 50 butéel bi nga baxal ko juróomi minute xob moom boo koy baxal toujours bu paase juróomi minute soo ko baxalee segg ko di ko naan par genn kaas boo ndékkee boo añ boo si kàttanu yàlla bu dee te dina ko wàcc kon suñu baamtoo ñett yooyu bu dee siburu bi sexaw mi ngay boole rat bi ak ngeer bi di ko baxal naan bu dee wàllu hépatite la sexaw mi ngay boole ak fayaar ak papaye xob papaye di ko baxal di naan bu dee tension bi sexaw mi ngay boole ak lii ñuy wax sanfito ak xobaraat si kàttanu yàlla dinañ dindi bu ñëwee si reen bi liñ si njëkk a tegtale mooy wàllu saan ak saan lu mu tëtëtë wutal ñetti reenu sexaw rek sa ñett muy la combrotum micratum su ko defee nga baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas bu dee mag bu dee xale kaas ataay si kàttan yàlla dina ko dimbali bu dee wàllu saan bu dee jigéen ji sëy te amagul doom wutal juróomi reenu saxaw nga baxal ko ko si litre ndox mu koy jël par genn wàll kaas bu ndekkee bu añee bu dee si kàttan yàlla dafay dimbali ki nga xam ni daf bëgg am doom bu dee ki seere la da ngay jël juróomi reenu nga euh, saxaw juróomi saxaw nga baxal ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo reer kon bu dee wàllu seere dara gënu si lii di reenu saxaw bi bu dee bët yi faral di metti ba léegi jëlal ñetti reenu saxaw nga baxal ko si litre ndox di ko sël moo di si xool si kàttan dafay faj loolu di bët yi metti kon suñu tënkee dañuy wax ni saxaw baax na si bopp ndax buñ nee soo koy naan day wàcce tension te tension day émerité bopp mën na dem si wàllu woowu saxaw baax na si wàllu siburu saxaw baax na si wàllu hépatite saxaw day sàmm ay roño boo koy jël nag ban nañu naan dañuy du leen di tere saxaw ndax seen tension day wàcce mais dafa am noo koy jëlee rek juróom-ñaari xobu saxaw boo ko baxalee si litre ndox xëy naan si benn kaas mënul la sonal buy wàcc sa tension dëgg lay fekk koy naan yenn quantité yi mais boo koy bu dee nga am tension buy wàcc da nga koy jël jël bu yem rek juróom-ñaari xob ngay baxal si un litre doo di ko jël par kaasu ataay doy na bu dee da tension di wàcc bu dee na bu dee tension di yéeg nag day tibb loo xam ba mu fees boole ko xoborat ak ko sans fito di ko baxal di naan si kàttu yàlla daf lay dimbali bu ñëwee si question yi ni ñu indi ku njëkk ki def ci moom daal dafa am li ñuy wax fibrome di laaj bi say tegtal dañ koy jox ñaari garab rek yu gàtt gaaw muy reenu ngolloñ bu amee ngolloñ reen bi ak reenu sump boo amee sump ak ngolloñ bu nekk ñeenti reen nga baaxal ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee bari si kàttan yàlla lu baax la si wàllu fibrome su dee taay bi ëppul juróomi centimètre boo ko jëlee te sax si bu yàggee mën ngaa tàggoo moom bu dañul completement yi mën naa wàññeeku ba tudd généti ëmb ndax fibrome moom li nit ñu war a xam mooy léeg-léeg nga am moom sax di ko faj si biir traitement bi nga jël ëmb mais bu ëmb bi gaawee évoluer dafay pousse fibrome bi liy danger bi kañ mooy nga ëmbaale fibrome bi mag ndax boo ëmbaale fibrome mag bu gënee développé ëmb bi day indi avortement kon loolu mat a xam si ñaareelu question bi kii daf dafa am angine de poitrine mosoon nañ si ñëw añ de poitrine dafay jàpp côté gauche bi léeg-léeg mu def douleur boo xam dafay jóge nii dem toppat loxo ba fii léegi da ngay am jafe-jafe pour yëkkati sa loxo mun naa nag palpitation di jàpp dënn bi côté droit wetu ndijoor bi donc wetu càmmoñ bi donc lay jàpp muy gauche bi fi xol bi nekk kon soo amee endométriose boobu li ñu lay digal mooy ngay jël légume ak fruit suffisamment wàññi luy nit ñi gras beurre nen chocolat yëpp am nga def ko sa lekk wàññi xorom guddi bi tey jël jinjeer lu bëri boo amee jinjeer sa loxo ba mu fees nga écrasé ko def ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo si kàttanu yàlla na dimbali wut carotte ràppe ko ba mu sew saa yooyu lekk di ko boole li ngay lekk di jël lu mel ni concombre lu mel lu mel ni poivron lu mel ni soble lu mel ni laaj yooyu boo ko dee boole sa lekk lu bëri te jël salaat kon oyof yooyu guddi gi si kàttanu yàlla da dem ba mu saafaraw te doo sonn kon lii la ñu andi tey si wàllu saxaw leen joxaan seen émission bi nga am